li sadinatan bi kullil yu tedd yi fi teew bokki jëlit yi ak bokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp ci turu ki nga xam ne moo fi jëmmi sëriñ Tuubaa tey ci kaw ci kaw suuf ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan suñu borom bàyyi ko fi lu yàgg lool tam ànd ak wér am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñu borom may ko kàttan ko wér ba lépp mu mottali ko nu kawe jortam ñuy nuyu mboolem kilifa yu fi te yu ni ko ñuy nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew ñépp di ay kilifa di ay boroomi xam-xam rawatina nag ki nga xam ne moo fi teewal njiitu réew mi di Seyd Mouhamadou Abdoul Aziz te ministère bi yor wàllu islam teewal ko fi ñu koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm ci teewaay bi ndax xam nañ ni xat na ci moom di ko yóbbante cant ak ngërëm Abdoul Aziz ci kóllëre ak bokk gi nga xam ne dox na diggam ak njabootu Serigne ak xam gi mu xam Serigne Touba li doon ci réew mi ak bëgg gi mu leen bëggoon ak li mu fi am mu jàpp kóllëre gi di ko doxal waxtu ne mu yónni ay délégation yu mag ci ki fi nekk Serigne Touba di sàkku ci moom ñaan di ko dénk senegal di ko dénk Mauritanie waxtu wu ñu fi dikkee itam lépp loo xam ne taxawaay la boo xam ne war na ko ci mu ngi koy def kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom gën koo dimbale kàttanal ko ba li nga xam ne tàmbali na ko ci réew mi ci liggéey bu baax boo xam ne ñëpp teg nañ seen bët mu mottali ko ci jàmm. di nuyu itam ambassadeur Moustapha Tall moom mi nga xam ne moo fi teewal président de la république Macky Sall nekkal fi réewum Sénégal taxaw fi ñaari tànk ndax mooy ambassadeur bi waaye itam ñëpp xam nañ taalibe gi mu doon ndax mu ngi bokk ci njabootu Serigne Cheikh Gaïndé Fatma loolu itam nag mu ngi koy wane waxtu ne ba mu fi ñëwee ba léegi. lépp loo xam ne war na ko ci suñ dikk gi ci taxawaay ak yitte ju ma sëkk ju desul fenn ngir xam ne réewam loo koy defal waaye xam ne ab taalibe buy jëf la moom itam kon ñu ngi koy sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu ñu koy ñaanal suñu borom mu dimbale ko moom itam kàttanal ko ba mission bi ñu ko indee ci réew mi te gis nañ ne lim ci man lépp mi ngi ko ci def yàlla gën ko ci dimbale defal ko ci tawféex di ko sant itam ci ndaje mi ndax lépp loo xam ne moo ko ci waroon def na ko ci taxawaay disul dara kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko yóbbante ci moroomi ambassadeur am yi nga xam ne teew nañ fi rawatina ambassadeur bu Arabie Saoudite ak Arabie ambassadeur bu Maroc ambassadeur bu Soudan ak ki fi teewal réewum Palestine ak ñi fi teewal ambassadeur Gambie ak ki fi teewal. Algérie yëpp limoon nañ ko kon ni ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxe woon léegi ci langue français rek laa koy tënkewaat ci wolof ndax fii ci Mauritanie ñépp xam nañ sëriñ Touba li taxoon ñu indi ko fii illa ja jërul dellusiwaat ndax wax nañ ko ndax dafa wax ne man zanna sayri rib aami aksasi mithla masiri rasa aami jaysasi sabata kawnuhu jahulan umra bal huwa tadyibul ali lil umra lam lam yakun sayru aksasin siwa jasa man li qaada baadu waadu na jasa kon loolu dafa ñëwoon ngir wax ne mboolem li desoon ci lu baax ci kaw suuf suñu borom dafa xott suuf si dóor ko ci biir ngir mu ñëw jël si ko kon nag képp koo xam ne ñëw nga fi suñu borom defala tawféex nga bokk ci njëbooru Sëriñ Tuubaa war ngay xeeñtu loola te xam ne ba mu agsee la ko Cheikh Sidi Baba njëkk wax rek acheikhu ahmadu nicmatun awlaha haasi alxalaaiqa kullaha mawlaha nee na Sëriñ tubaa xéewal la gu suñ borom wàcceel àdduna sépp bu ko yóbboo Sénégal mu doon seenu xéewal bu ko yóbboo Mauritanie mu doon seenu xéewal kon nag bu yàlla dogalee mu dem ba ñaari réew yi li nga xam ne moom la àdduna sépp bëgg muy pétrole gaz mu boole ko seen diggante kon loolu lenn la ci meññanti liggéeyu Sëriñ Tuubaa kon nag yàlla na ci suñu borom def barke bañ ñi fi dëkk ñëpp jariñoo ko te lépp loo xam ne du jur jàmm wala fitna bañ ci am jeexale ko rek ci bayit wi nga xam ne Sëriñ Tuubaa waxoon na ko ñoo xam ne ñëpp tàbbi nañ ci biir la inna allazina ila sarsara qad qasadu ziyaarati faaraxu daarini aw sara néew na képp koo xam ne bàyyi nga fa nga nekk fekk fii ma fekk si ma fii ci sarsaara siyaare si ma suñu borom tàggatee la ak say bàkkaar adduna ak alaaxira Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nag waxoon na ne foo ko Serigne Touba waxe woon ba fii mu ne ku ko siyaareete ku ne garaat booba dana tàbbi ci yow kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba suñu borom mottali ay yéeneem te dolli leer nag ki nga xam ne ci ndigalam lañ fi tàmm doon yow muy Cheikh Sidi Mokhtar suñu borom dolli ay leeram te dëgëral ak njabootam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh li sadinatan bikun lil janna min daari minan yaasal minna li sadinatan bikun lil janna min daari minan yaasal minna